Téléspectateurs de Diaspora News, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Une épidémie rare a fait son apparition dans la région de Kédougou avec au moins 47 cas. Il s'agit de chikungunya, révèle le directeur régional de la santé, Dr Ababa Karmbay. Selon le professionnel de la santé, cette épidémie a été enregistrée dans les départements de Kédougou et Salemata. Il a par ailleurs assuré que la direction régionale a pris des mesures nécessaires pour le traitement et le suivi des cas déjà enregistrés. Un militant du nom de Léon Ding de l'ex-parti Passif Les Patriotes a été arrêté à l'aéroport international Besdian de Jasper par des éléments de la division des investigations criminelles indique une source policière. Lui est reproché des publications assimilables à une offense au chef de l'État sur ses comptes sociaux, ajoute la même source. Léon a également poursuivi pour actes et manœuvres de nature à jeter le discrédit sur les institutions. Alors que la CEDEAO s'apprête à intervenir militairement au Niger pour établir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions, le leader de l'ex-parti passif estime que c'est une mauvaise idée de lancer cette intervention contre les putschistes. Depuis sa la cellule, l'a a jugé dans un poste partagé par son avocat, maître Juan Branco, reportant de mettre en garde solennellement la CDAO à renoncer à l'usage de la force dans cette situation créée au Niger dans laquelle tout le monde est convaincu qu'elle ne joue tout au plus qu'un rôle peu glorieux de force supplétive pour des intérêts parfaitement identifiés. Sur l'international de violents combats ont éclaté en Libye les 14 et 15 août ayant opposé deux milices, la brigade 444 et la force Al-Rada. Au moins 55 morts et 146 blessés ont été dénombrés en banlieue de Tripoli selon un nouveau bilan communiqué mercredi par le porte-parole du central médical d'urgence à la chaîne libyenne Libya Al-Arar. Selon une source médicale, 234 familles ont par ailleurs pu être secourues et extraites de zones de combat au sud de Tripoli ainsi que plusieurs dizaines de médecins ou infirmiers étrangers bloqués ce mercredi en calme précaire semble régner sur la capitale libyenne. À noter que ces nouvelles violences ont été condamnées par l'ONU qui a appelé à une cessation d'hostilité. Au moins 17 soldats nigériens ont été tués et 20 blessés dans une attaque de djihadistes présumés perpétrée le 15 août près de la frontière entre le Niger et le Burkina Faso, a annoncé le ministère de la Défense à Niamey. Dans les détails, un détachement des forces armées nigériennes est tombé dans une embuscade mardi après-midi alors qu'il se déplaçait entre Boni et Torodi près de la localité de Koutougou. Les blessés ont été évacués vers Niamey en début de soirée par hélicoptère. Il s'agit de la huitième attaque au total depuis que le président Mohamed Bazoum a été renversé par des militaires le 26 juillet dernier. En sport, comment le défenseur polyvalent Abdou Diallo quitte officiellement le Paris Saint-Germain pour l'Arabie Sport Club à l'occasion de ce mercato d'été. Ce mardi, l'international sénégalais a signé un contrat de 4 ans en faveur du club qatari, une opération estimée à 15 millions d'euros. Dans le même temps, un autre joueur du club de la capitale française a fait ses valises pour l'Arabie Saoudite, en l'occurrence Neymar. Le Riverda a été cédé à El Hilal pour un montant record de 100 millions d'euros. Il devra toucher un salaire annuel de 150 millions d'euros. C'était tout, mesdames et messieurs vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes Diaspora News Télévision. ami internet diaspora news tv ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, di leen dalal ci euh, li gën a fës ci xibaar yi dañu koy daal di door ak émigration clandestine euh, ginnaaw daram bi am ca Cap Vert ba juróom-ñaari sénégalais daal di ci ñàkk seen bakkan loolee di li Khalifa Sall di naqarlu bu baax leader bu plateforme taxawu Sénégal Khalifa Sall daal dina àddu ci mbir moomu le di doomu sénégalais yi nga xam ne rek ñoo des ci géej gi te doon utali foofee ca biti réew bi daal dina xam ne ni immigration clandestine bi ndaw yi di euh, def di ko jaarale ci ndox mi dafay mbir moo xam ne rek jaar na nag ñu daal di ci interpeller euh, responsabilité ñëpp rawatina bu nguuru ku Sénégal la mu daal di xam le rek ndaw ñi mën nañoo toog fii ci réewum Sénégal waaye itam mën nañ fee tekki euh, bokk na ci xibaari mbokk yi ci wàllum wér gu yaram benn épidémie boo xam ne rek daal na feeñ foofu ca région bu Kédougou lu toll ci ñeent fukk ak juróom dinañ ko fay gis foofu muy euh, épidémie bu ñuy woowee euh, chikungunya loole la directeur général de santé docteur Ababacar mbay euh, daal di xamle la mu daal di wax ci mbir moom rek daal dina xamle ni épidémie boobu ñu daal di enregistré ci département bu Kédougou foofee ca Selimata mën nañu assuré ñi nga xam ne rek ñoo sekk ci wàllum direction régionale bi ngir ñu daal di jël ay mesures yu amaam solo bu ko defee rek ñu daal di amal traitement jëm ci ñi nga xam ne mooy cas enregistré bu loolu jàllee mbokk yi ñu wax euh, ci walum yoon ben militant euh, buy wuyoo ci turu Léon ci ex parti Pastif les patriotes daal dinañ ko tek loxo niki démb ci euh, talata ji ci aéroport international Blaise Diagne bu par ñi nga rek division des investigations criminelles lolé lañu indiquer indiqué ci ab source policière lañu koy daal di rek na ci publication wala jëm ci li nga xamné offense chef chef de l'État euh, ci ay comptes sociaux waaye itam euh, daal dinañ xam ne rek ci li nga xam ne moom lañ koy toppee bokk na ci acte manœuvre de nature ak li nga xam ne rek mooy jeté le discrédit euh, jëm ci institution yi ci noonu rek CEDEAO bi nga xam ni pare woon na ngir intervenir militairement foofee ca Niger ngir daal di delloowaat nguur gi ki nga xam ne rek mooy président Mohamed Bazoum ci ay fonction moom lu ni mel leader bu ex parti bu Pastef xam ne rek mu ngi koy euh, rafetlu ngir ñu daal di amal intervention jëmale ko ci kaw euh, putschiste yi moom la mu daal di xamle foofee ci euh, cellule am daal dina partagé benn poste ak ki nga xam ne mooy kenn ci avocat woom yi di Juan Branco ci noonu sax Ousmane Sonko mooy ñaax waa CEDEAO ngir ñu dellu ginnaaw ci décision boobu nga xam ne rek daal nañ ko bëgg indi foofe ca Niger ñu wax ci actualité bi nga xam ne rek moo ñeel biti réew mi ñu gis ni que sax ay jàppante daal dina am foofee ca Libye euh, ci euh, diggante fukki fan nag ñeent jàpp fukki fan ak juróom euh, ci weeru août ci diggante ñi ñuy woowee milice brigade bi nga xam ne rek moom mooy 444 ak ñi nga xam ni mooy force al rada lu toll ci juróom fukk ak juróomi doomu aadama ñoo ci daldi ñàkk seen bakkan ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn yoo xam ne dañu cee am ay gaañu gaañu yu méttee métti foofee ca banlieue bu Tripoli ginnaaw bilan bu bees bi nga xam ne rek daal dinañ koy communiquer tey jii ci àllarba ji euh, di euh, porte parole bu centre médical d'urgence euh, bu chaîne libyenne Al Ahra loolee la ñu daal di xamle ci source médicale boobule ba tey lu toll ci ñaar téeméer ak fanweeri ñeent famille mujj nañ leen secourir ci zone yi nga xam ne rek foofu la combat yooyu am foofu ca sud bu Tripoli ci noonu rek médecin yu bari ak infirmière dañoo daal di bloqué woon foofee ci àllarba ji fi yi nga xam ne rekk moo am euh, ca foofee ca capitale euh, libyenne euh, si fàttali rek violence yooyu nga xam ne amoon na fa ñi nga xam ne rek ñooy waa uni dañ ko condamné woon te ñoom ñu ngi doon ñaax ngir ñu daal di arrêté jàppante yooyu nga xam ne moo am foofee lu toll ci fukki soldat ak juróom-ñaar nigérien daal dinañ ñàkk seen bakkan waaye itam ñaar fukk ñoo xam ne dañoo am ay gaañu yu métti métti jëlee ko ci attaque jihadiste boo xam ne daal dinañ ko fa euh, nemmeeku euh, ci fukki fan ak juróom ci weeru ut foofee ca frontière Niger ak fi nga xam ne rek mooy Burkina Faso loolee di app euh, lu nga xam ne rek jëwriñ ñu dénk wàllum défense ca ñaami daal dina ko xamal ci noonu rek ñu daal di fay gis benn détachement force armée nigérienne boo xam ne rek daal dina ñëw embuscade ci talaata ji waaye itam lañu ñu daal di xamle rek ngir ñu daal di déplacer ci diggante Boni ak Trodi ci euh, lu euh, foofee ca localité bu euh, gu ñi nga xam ne rek ñoo ci daal di am ay gaañu gaañu dañu daal di leen évacuer foofee ca ñaami ci guddi googu pa li nga xam ne rek mooy benn hélicoptère loole lépp buñ ko nemmeekoo rek daal di nañ xamle bii mooy juróom-ñetteelu attaque bi nga xam ni amal nañ ko foofee ci diggante bi nga xam ne rek daal di nañ daaneel nguuru ko Mohamed Bazoum le 26 dernier bi nga xam ne moom la ñu ñu jeexalee mbokk mbokk yi ak li nga xam ne rek moo ñeel xibaaru tàggat yaram ñu wax ci mercato Paris Saint-Germain daal dina annoncé li nga xam ne rek mooy transfert définitif bu défense international sénégalais bi di Abdou Diallo euh, ca Al Arabi Sport Club foofee ca Qatar euh, Paris Saint-Germain mu ngi continuer di dégraisser li nga xam ne rek moo jëm ci effectifam bi euh, ginnaaw bi mu dal di ñëwee ci prêt bi nga xam ne daal dina ko def ci diggante benn at rek foofee ca RB dina officialiser transfert euh, ca Qatar euh, ki nga xamné rek Qatar foofu Al Arabi Sport Club Abdou Diallo dal dina euh, fekki équipe Qatar bobu di Al Arabi Club Sport ci li nga xamné rek mo jëm ci cadre transfert définitif ñu wax ba légui ci club soudanais Al Hilal dal dina officialiser ñëw ki nga xamné rek moy Neymar ci diirub ñaari at brésilien bi dal dina jóge foofee Paris Saint-Germain ginnaw juróom yenn saison passé yi nga xam ne amal na ko foofee ca France mu daal di aventure Neymar mën nañoo jàpp ni sax jamono ji mbokk yi daal dina jeex foofee brésilien bi nga xam ne rek ay atam toll na ci fanweer ak benn daal na officiellement engagé jëm foofee ca euh, Arabie Soudan ci club boobule Al Hilal ci ab salaire boo xam ne rek mbokki euh, record bi mu ngi daal di toll ci cent soixante cinq euh, milliards francs fa jëm ci fi ba deux mille vingt cinq mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci Euh, fi nga xam ne rek mooy Diaspora News TV lii moo fi gënoon a fës jëm ci xibaar yi di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah.